ma yaay ji caam dembal caak ak jogoma yàlla na ko yàlla xaare aljanna fi ndaw gën a kawe euh, te euh, yeexeñu waaye tam di ñaanal sama yaay ab sa jëng saala yàlla na yàlla xaare ko aljanna moom it attee ko ci yërmandeem ñu ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp ñoo jox ñi seen wàccuwaay ndeeli taacu bu euh, sama rakk joyeux anniversaire yàlla na la yàlla sàmm yaayu Seydina chéri Doudou madame Wade yàlla na la yàlla xaare dal di lay sàmm bu baax a baax may lu gudd fan gu ànd ak wér ma daane nu mu tudd sa xarit bi awa joyeux anniversaire xaritu ma daani ma rega démb bayta la woon ba pare damaa ñëw nañu yëpp ma ci ay yére yabal ma valise yere boo xam ne daal dañ na ma del dem waxtaane ko di sañse moom yaa ngi mel ni tey moom moo fa jaar yaay Mohamed yaay Papi chéri Ibou Diouf waaw waaw njëkke lay jëriñ la dóor faal faal njëkke du la saaga mhm. faal njëkke du la xas mhm. faal njëkke du la bloqué du la wax ju ñaaw du la tuumaal la jaay àddina lay dëgg la lay dëgg la jabar bu waree mu mel nu mu war a mel mhm. njëkke ba ca kër ga dafa war a mel a dëgg la man nag sama yos ay dañ maa bëgg faal ndeysaan mm-hmm. ma leen bëggee nag ñoom ñoo ko dañu maa bëgg fonk ma teg ma sama place en tout cas ku ma teg sama place moom teg naa la fa waaw waaw ñu bëgg ma lool baax lool du ngeen ma xas du ngeen ma saaga du ngeen ma bloqué te du ngeen ma wax ju ñaaw dégguma ko it te ngeen ma gaara <laughs> ñu baax ngeen yal na leen yàlla sàmm ndooy maali madam ndooy guddal seen fan may leen wér gu wér gu yaram gu sakkan lool ñu baax ngeen mantu li nga leen jox lañ la delloo mm-hmm. lañ la jox nga leen delloo mm-hmm. gis ngeen nit day am fulla Euh, maa ko yeyoo mhm. man rek la ñu war a respecté mhm. man rek la ñu war a jox cër man rek la ñu war a teral ku koy wax mhm. dof nga cër ba nga leen jox lañ la de lañ la lañ la delloo yàlla na yàlla sàmm la di la nuyu bu baax di nuyu Pa Ousmane di ko ñaanal wér ak wérle amiin yaa rabbi di nuyu bu baax euh, suñu préfet bi Djibi Diallo di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér Cheikh Matar Diouf maa ngi lay ziar bu baax ak euh, madame Diouf maam Ami di leen ziar bu baax a baax a baax di ziar yaay Fabienne yaay di ko ziar bu baax a baax a baax a baax non il faut ñu dem seeti yaay Fabienne <laughs> yaay Fabienne di daf ma ci neex non yaay Fabienne di ko ziar bu baax di ziar bu baax a baax euh, Boubacar Faye ak madame fay euh, xaritu Mantou ca Guinée madame Faye nam naa ko maa ngi koy ziar bu wér ndeysaan ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar bu baax tamit euh, El Hadj Mor Gueye Sopp Nabi ca Thiès ak waa groupe Sopp Nabi yëpp ñoo ngi jëm ci gàmmu gi di ko ziar ah. bu mm, baax a baax a baax yow da ngay gàmm incha allah bien incha allah damay gàmm moom sama kër ci kàttanu borom bi waaw waaw incha allah incha allah man maa nga cena ba lay ndeysaan gàmm mm-hmm. moom El Hadj Mor na bi bu baax a baax di nuyu tamit euh, euh, Serigne Medoune sëy borom taw feex euh, nee na chaque lundi ak mercredi du duñu raw nee na bu xëyee mercredi ak lundi moom Euh, ñun lay seetaan ba pare feneen fu muy seetaan toog ko seetaan sëñ Medoune ñoo ngi bu baax bi ñu koy kaañoo moom ñuy seetaan voilà doomu diw ak diw ràkkal la mm-hmm. doomu diw ak diw ràkkal la te ràkkal moom xar rek ak nag da mel ni diw mm-hmm. koo laal mu niin ko laal niin koo xëpp ci kaw mu sangu ji kon doomu diw ak diw amul solo <laughs> mooy doomu diw diw amul solo Cheikh mun taxa Niass laay ziyaare ndax boo ne gàmm rek xel yëpp day dem ci Mérina Baye Samba Coro Fall mm-hmm. Samba Diayla ñas Cheikh Ahmadou Muntaxa Niass doomu suñ Muntaxa la suñ Muntaxa doomu Cheikh Ibrahima Niass la maam Baye Niass mm-hmm. di la ziar baax a baax baax Cheikh Muntaxa ak sa soxna soxna Ndey Faatu di leen ziar muxaddamam bi nekk fii waay wala Insa mm-hmm. na Baye rek sa xel dem ci Mamour Insa waaye ku tudd Niassène tamit sa xel dem ci imam Mouhamed Niass leew na Niassène di ziar waa Kaolack ñëpp rek di leen ziar baax a baax baax borom Cambérène macha allah gàmm gi de kon nar naa métti comme que nga xëyee tey di ah, waajal burdu bi rafet na de njëkkee nii lay def da lay njëkk da lay ngàdd ay lan lii borode la lii jippir la jippir ma dafa mës a seer nag mm-hmm. musuma gis kuy doxantoog jippir mm-hmm. ah, fooyee jippir maanaam mu dem bañ naan jippir wàcc na jippir mës wàcc dafa am yuy wàcc waaw am ñoom ñun téer lañ waaye dañ ni borom Mauritanie te am bis yu wàcc am yu dul wàcc jippir du wàcc jippir du wàcc am na xam du jug am ko mm-hmm. waaye njëkkee nii la mën a mel mais yow a baax da nga la la nga leen ji moom lañ la delloo macha allah mm-hmm. ku baaxee am lu baax borom Thiès di la ziar baax a baax Alas leen a baax di jeexale ci nuyoo bi Mamadou Faye maire Ourour DG Fera màggal gi noonu la macha allah tali yi set na euh, accident yi bëriwul dem nga ba suñu Muntaxa def fa teraanga gàmmu gi tamit noonu kazalika kon yàlla na yàlla euh, gën a jàppale macha allah Fera gën a jëm ci kanam di la ziar baax baax euh, mantu nuyoo baa ngoo nuyul ma Ndiare Dieng sama xarit suñu xarit walaay gëj nañ a ñu lay ziar bu wér njaar ku baax ku am kóllëre. ku am kóllëre daanaka la euh, di leen jaajëfal Omar Cheveux sama rakk moo jaar ci bopp bi. maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax greffage Omar Cheveux bopp bi ñu ko defal. marché Zeng Omar Cheveux. Mm. marché mm. Zeng. Euh, mm, foofu la nekk dinañ ñëw ci kanam tuuti ak Omar Cheveux sama ku baax ku baax ku baax ku xam teraanga yàlla na la yàlla sàmm ñu xool suñu élément Fall. aywa ñu dem xooli ko ay ca ñëwaat yeggale bu démb bi jabar di leen ñuy tromper te ñi leen ñuy tromper en mooy ñi am jëkkër la te ñi nekk ci néegu sëy yi. maanaam buñ la buñ la dee tromper maanaam buñ dee am beneen gel. waaw buñ dee doxaan maanaam ñi am jëkkër lañuy ñuy doxaan. ñu am jëkkër yi lañ nekk di doxaan. yow loo ci dund. man dund naa ci lu nekk. ci naka. ndax dem naa ba ci ci sama sëy sax moyen cinq mu denc. waaw. ndax man sama jëkkër dëkk bi ma takkee tax. ci dëkk boobu moom la doon ci même dëkk boobu tamit la doon doxaan te ci muy doxaan jàmbur la. waaw te kooku dem na ba découvert ne. Eh. ci muy doxaan ko kooku tamit jëkkëru jaam jàmbur la. ko pare kooku finalement jabar ji jëkkëram da koo a may baat. ba mu ko xamee. waaw ba mu koo mujj abandonné. Mm-hmm. waaw mais ba léegi ba finalement ba nii ba mu ko jëkkëram mayee baat mu ngi retourné encore di génn ak sama jëkkër. mu mujj maanaam da bi da daraan daraan génn sa jëkkër ci bi mu amee jëkkër. waaw. mu dem a dem a dem a dem a dem ba ñu fase ko mu continuer di génn ak sa jëkkër. mu continuer di génn ak sama jëkkër te ba tey ñun loolu yëpp ñu ngi koy dund ci biir néegu sëy di ko muñ di ko mm-hmm. di dund méttit bu mel noonu ci biir néegu sëy. yow bi nga ko bi nga bi nga bi nga xamee loolu ndax mos nga cee waxtaan ak sa jëkkër. mos naa cee waxtaan ak moom xuloo naa cee moom sax demoon naa ba bëggoon a bëgg sumay bagage dem. nga ne ko diw ah. diw diw ngay doxaan te dafa am jëkkër. loolu la wax moom ci moom ci boppam xam na ko. man ma ne ko diw bi ngay doxaan nii tas nga jàpp sëyu jàmbur yow yaa ngi yore sa jabar kii di sëy sëyam da ko sëyam ndax ci téléphone am dama ci doon gis ci téléphone am dama ci gis photo gel bi gel bi def ay nuyu yet ak ay photo yi doy waar daal mu envoyé ko sama jëkkër ci jour ma jour bi ma sëysi uh-huh. sama jouru ceet laa découvert photo yooyu sama jouru ceet sama jouru ceet jour bi ma sëysi waaw laa découvert photo yi te ba ma gisee photo yi te photo bi ma gis jigéen bi man dëkk bi ma jógee ñëw sëysi jigéen bi dëkk boobu tamit la dëkk maa moom ñoo bokk benn dëkk waaw waaw te jour boobu laa du découvert lépp. yow yow yow ban réaction nga am bi nga ko gisee. nga ni kii na ma trop ba fii may wax yow maa ngi sëy mais ànduma sama conscience tranquille. ndax maa ngi dund lu metti ndax di see góor ci ñun. mu la teg yenn genre souffrance yi góor yi war a xam ne jigéen ñi dañoo bàyyi lépp ne ndax sëy. gis nga góor kenn mënu koo tere doxal. dëgg la jigéen bu yëkkati loo xam ne man sama jëkkër ci man la yem. nel yaa ngi wax li la neex. walaay dëgg la kenn terewul doxaan. mais booy dem bay doxaan na nga jox sa jabar cër te na ba jabaru jàmbur ñi parce que benn rek yaa ngi bakkaarlu hmm. yow dèjà tey boo deewoon tey lan ngay lay yàlla suñu borom ak lan nga koy wax ci kooku nga tas sëyam ci kooku nga tas rek am nga fa bakkaar te bu jigéen bi man ba ma ko woowee def ma xamal na ma ñoom ñaar mënuñoo ñoo ah ma xamal te moom ñoo bokk benn dëkk xamante nañu bu baax. mun la sa jëkkër maa sa jëkkër mënuñoo bàyyante. mënuñoo bàyyante sama nag ma jëkkër am na njaboot. ndax bi mu bi ñu ko la wala bi mu nekkee ci biir sëy ba. ba mu nekkee ci biir néegu sëy ji. jabar ji ba ma ba ma woowee jëkkër ñu ne ko sa jabar kat daa nekk di génn sama jëkkër. waaw jëkkëram jëkkëram dafa ñëw ba fu ma dëkk. waaw ma gisante ak sama jëkkër na ko kon sama jabar ngay génnante sama jëkkër waat na ma amul ma ne ko photo yëpp ak preuve yëpp a ngi nii ma wane ko kon xam nga ne loolu seede loolu doy na preuve mu ne ma waaw yére yi sama yére jabar la te kii sama jabar la ma ne ko moo ngi nii photo yi ci sama téléphone laa ko ji sama jouru cër laa découvert vérité bi yëpp kon yow yaa ko xamal jëkkëram de ah man maa woo jëkkëram téléphone ne ko waxal sa jabar mu bàyyi sama jëkkër waaw jëkkëram ne ma ban preuve nga ci am ma jël message yi transfert ku jëkkëram waaw mu ne ma sama jabar ni la may trompé ma ne ko waaw ci sama jëkkër na ko bàyyi sama jëkkër xale bu jigéen bi jëkkëram jàpp na ko yóbbu ko brigade hmm? yóbbu ko brigade na ko bàyyil jëkkëru jàmbur mu ngay génnal waaw mu ne leen carrément mënoo koo bàyyi ah. ndax man franchement parler dem naa ba ci ay nit sax nee nañ ma dañ leen a dëddale ndax yow da daan toog ak sa euh, euh, euh, kooku nga bokkaloon dëkk di ko wax sa jëkkër nga ni toog ak kooku di ko wax ni ko sama jëkkër sama jëkkër daa aay dafa def nangam ak nangam musuma ko koo wax. parce que lan la toppee lan la ko toppee lan nga moom la ko toppee. ah bu dee xaalis la de sama jëkkër yor ko. waaw bu dee alal kese la. leer na mën a yoru ko. ndax tey su ma la na ne ko. bu dee xaalis kese kon moom li mu ko toppee nag man loolu xaw ma ko. dëgg la la ko nëbb yàlla dem na nag ba ñu am ay bant. di ko jural ay seet ñaari jigéen. mais ba tey ci néegu sëy ci may wax ak yow nii sama jëkkër bu ma waxee moom sax te mel ni ka ay day laa koy fas. waaw waaw ndoxaan ndoxaan bu neex a mel noonu. ndax ay kàddoom ak ay waxinam te moom jabaru jàmbur ñu mu doxaan kooku mu yoro doom sax. kooku jëkkër ba koo jëlee ba dëkk man ba dëkk bi ma takkee jëkkër da koo jëlee ba foofu indi ko man sama jëkkër dëkk bi nekk na nekk te moom moo ko doon yóbbu ci moto moo koy indi buy liggéeyi moo koy yóbbu buy wàcc moo koy indi waaw. man bu mu di jotee sama jëkkër ne ma maa ngi dem liggéey parce que mënu ma koo tere ndax góor buy dem day ji doolam day indi li am dépense am indi ko ci kër nekk te moom moom ñu ngi ferekaan ba nii affaire bi man dama demoon ba defee ne affaire bi jeex na temps yee dugal ko nëbb ndax jigéen ñi ne da ngaa sob waaw téléphone am mu teg ma vérifié ko gisaat ci même ni même message bu xale bu jigéen bi muy wooma woo ma ndax mm-hmm. instant dama nekk ci jafe-jafe dama bëggoon nga woo ma nekk ci jafe-jafe yooyu nag la ko xale bu jigéen la ko jëkkëram mayoon baat ma jëkkër ji ko wax ne ma may naa sama jabar baat ndax damaa jógee voyage ñoo dugg ci ron lal bi tëdd sama jabar xamul ne maa ngi ci ron lal bi ma dégg ko muy waxal jëkkër waaw naan ko nañ dajee sangam place bërëb bi ñu daje oh. affaire bu soke ma ba ma ko jëkkër ji di ma ko wax laan dema tabaski bi la ba jullee ba ci ëllëg si affaire bi frappé ma ndax fu mu mun ci dem ndax ñi may seetal dañ ma ne dañ koo def seen diggante diggante la ñu dëddale franchement te man nag am lu dul sëy te bëgg lu sëy ñaanuma yàlla na bokk ci xale jigéen yi nga xamante ne yor seen appartement di dugal góor dugal duraat amul amul amul mujj. walaay amul mujj. àddina lu dul sëy dara baaxu ci. man bëgg naa su may mooy bis bu ma demee suma jëkkër néegu sëy bii may néegu sëy bii ne sax bu dee mus naa koo may ci benn yàlla na ma ko yàlla woon balaa may génne àddina musuma koo mooy benn bis wanuma koy daray ñàkk fayda mu ngoog ñu ngi koo jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax faal thème bi mu ngoog démb mhm. yaakaar naa ni ak sama yaay ajandaak mhm. abordé nañ ci point yu bëree bëri bëri bëri mhm. ah, ci wàllu jigéen ñi nga xam ne dañuy am jëkkër ba pare waxuma la di farantoo kenn waaye di bëgg keneen parce que coow lii nag boo laaxee ba ca biir mbëggante bëggee daf cee am parce que bu ñu demee ba takk der yi jëkkër ne la bàyyil jëkkëru jàmbur moom jëkkër ji la takk mhm. ci farataak sunna ne la mhm. bàyyil jëkkëru jàmbur yow nga taxaw ne sa jëkkër mënuma bàyyi kii mbiran ci biir nañu xam te dëgg Pa Ousmane mbëggeel ma nga ca mhm. léegi nag problème bi mooy ci ñoom ñaar lan moo dox ba indi mbëggeel gi yenn saay jigéen ñi ñoo dul doylu ci seeni borom kër Mm-hmm. waaye yenn saay góor ñi ñooy xoy jigéen ñi mm-hmm. Mm-hmm. parce que li la manqué fee rek soo gisee keneen am ko sa xel ñaaw moo tax yenn saay da ngay dégg ñu ne yàlla na xel dee parce que yenn saay looloo koy waral la nga manqué fee yàlla bu ñuy ñaari xarit faal nga xamal sa xarit lépp da ngay xam ne lii manqué na fële yow loolu ngay charmer jabar ji pour attirer ko pour mu ñëw ci yow moo tax ñuy wax yàlla na xel dee moo tax ma ne yenn saay problème bi teg ko mooy lan mooy waral góor goo xam ne da nga jaax nekk ci diine ñu ne la lii dafa xaram boo ko defee safara nga jëm tere nga koy def. Mm-hmm. jigéen ñu ne la dafa xaram boo ko defee dee moo dagan ci yow te day yàq sa njaboot terewul yow nga bàyyi loolu lépp di ko def. Mm-hmm. fit la sañ-sañ la mbëggeel boo mënta contrôler la dund sa temps la comme ni ñu koy waxee lan la lan la Pa Ousmane. Mm-hmm. wala ndeysaan <laughs> ci nit. nit kay dafa dëgër fit rek. Hmm. lu ne lay def gis nga dafa nga am da nga da nga da nga tudd fu neex gis nga ñaga. Hmm. man lu ma xas ba tàmm. mu tax tàmm ak a bon tàmm baaxul. waaye di tàmm na tàmm lu baax. Hmm. exemple bu ma tey fii laa añee ma ne resto bi ci Dakar tey. demee demee dem ba ba foofu rek laay añee nag du ma añee fa ne ma bu ma demee ba jub ko mu tëj day mel ni sama biir dafa fees. wala dootoo mën a añee feneen. waaye bés boobu nag bu la ci xiif dikkalee yenn saa mu arrivé la xiif dikkal la nga ne naa mos fee ba xam nga daw mos fee ne hee man de sept ans maa ngi bëgg a dee niki te fii lii lañ ma doon wan biyee dàq keroog ngay tuxu mooy waral ne bul bul xam laneen mm-hmm. sànq encore boo amee sa jëkkër rek yem ci bul jéem a xam laneen bul jéem a rogo yeeru laneen bul jéem a dañ kumpa laneen mm-hmm. ndax mën ngaa dañ kumpa rek far dëkk fa rek far naa mos rek far dëkk fa naa mos tey rek a ah, lii kon kii la naa tuux tey rek far dëkk ca far foo bañ a biddanti bu fa fanaan loolu da ci am kon toujours nañuy yem ci luñ am te maandu ci te xam ne lii la yàlla séddee waaye nag boo boo ñemee laan rek ëllëg mën nga caa macha allah ba leen fekk la ca yu bëri mi ngi ci mm. yu bëri mi ngi am na ci mbon am na ci taamu am na ci bëri na ñoo xam ne ni tamit kenn du ko cautionné nag am jëkkër am far am jëkkër bëgg wax dëggee ku ne si jëkkër nga war a bëgg njëga faal daa nga gis jigéen ju góor goo xam ne daawuñ bëgg seen bopp góor ñoo xam ne xamuñu àdduna góor ñoo xam ne dañoo foog na ñoom lu luuti dépense rek indi seen jabar togg moo leen war ñu dem ba seen jabar bëgg kaneen jigéen daana bëgg xale bu ndaw jigéen gu am gu am 30 mën nga dox gis benn xale ba am 7 ans wala xale boo xam sa ma nga ca zaan maa neex waay booy da ngaa nopp xale bi ndax xale bi ni mu mel daf laa neex mhm. xale bi dooj na xale bi bari na ci caaj xale bi nangam xale bi neex nga nopp xale tam ah, yaa ko mag de wax li nag maa fekkee ko mën nga nopp xale bi moo tax nga naan dégg ñoon moo mag jëkkëram déedéet mbëggeel amul hmm. amul mag nga nopp xale bi yenu saay ab xale bu ndaw amul âge nopp xale bu ndaw nopp mère bi wala nopp jeg xale bu ndaw dana am ans daal lay nopp xanaa su def ndeysaan temps parce que benn xale sax moom sa jabar ji laa nopp na ko pa Ibrahima ndeysaan doomu sëñ xaadim la mi ngi mbuur ñëw suñu kër <laughs> ah. uh-huh, uh-huh. xam ne moo ko mag même xale la wala sax nga passé xale sax am 16 ans nekk nga koo xam ne nii man am nga xel yëpp mais ngi gis benn jeeg nopp ko doo ko nopp ngir foo moom de da nga kaa nopp ngir dafa yaañji moom sa xol daal moo ne ci moom daal. dëgg la loolu day am sa xol moo ne ci diw dama kaa nopp te fekk noboo ko pour caaxaan mais na mel a tax nam mel ndax xol kenn du ko téye njëga fal kon comme que yooyu yëpp day am nag kon ku nekk nay waaj na góor war du nam war a mel na koy mel. dafa mel ni ci fajar kii feneti naa la ngay wax ay axak ay axak yooyu demee nox mais moom da ngaa mm-hmm. moom dafa xuuse Fall la sant moom ceddo la moom kon kon ku góor ki nay fexe ba ba ba jig soxnaam bu ko gisee day kontaan. Mhm. day fexe ba lépp lu war a am ci góor bu génne da ko gis ci yeneen góor ñi da koy gis ci borom këram. na koy gis ci bu ci wàllum cet gaag. Mhm. wàllum bëgg àdduna ak wàllum boo nekkee saay nitu yàlla tamit ta ta tamit bëri woo affaire tamit mais wóorul. da ngay génn sa soxna parce que xol bu ne la boo toogee ci kanamu taalibe yi mën ngaa bañ a def yenn mais da ngeen wét yéen ñaar. Mhm. ba ci oo na soxna yoo xam oo leen di daane. ba ci faas yi waaw ah, bëgg maam yow sikki mu suñ fàllu copp bi wala ñoo da ngaa yor bii bu dee bii koy daane nga koy wat nan ko bii dafa yàllewul dara. mais yow ku moom wax bii moo koy daaneel nii. kan ba nga bàyyi nii. moom la. exemple yi muy boppam rek waaw. waaw Ousmane say bu saa si yéen daane. boo xamee bi koy daane koy war nag naan yàlla wul wala nga nga dudd àdduna ba tax ëllëg mu gis keneen topp ko yaa ngi bëgg a euh, euh, kon toujours kon yooyu da ciy am am na ñoo xam ne ni seen jëkkër ñoom ñoo dëdd àdduna wala ñoom ñoo bon seen bonu bopp ba ëllëg seen soxna gis leneen bëgg caa taq ak yi nga wax tamit am ñoo xam ne ay nettali ay yooyu yëpp da ci am waaye nag bii dafa mel ni mbëggeel moo ci am ndax ñëpp nee nañ ko bàyyal mu ne mënumaa bàyyi comme que bëgg am na nag sa soxna bëgg na keneen nag yaa xëyti yow tee nga bàyyi mu dem man lu ma waaye gën a bëgg lu dul Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ma bàyyi la dem sama yoon yow lii lii la bëgg yow bëggatu la xam nga ne yow kii la topp mais ba ko nag nga wuti nga wuti nga wuti keneen ku nekk nag am na am na am am na koo xam ne ni bëgg moom la bëgg mais topp ci topp ci topp ci ba yenn saati mu lay jural yenn am na koo loolu tamit day xam ne tamit macha allah bëggul mu bëgg a génn yëpp da ci am kon daal ku nekk na sëy ki nga bëgg bu maam Sidi ñu jël téléphone bi 88 628 89 90 28 28 28 ñu bës 2 33 841 20 69 ñu bës képp ku ñëw rek euh, mën na dugg ci antenne bi euh, la ma ci gënoon yitteel nag tey ci téléphone bi mooy euh, lan la ñuy conseiller xale bu jigéen bi surtout parce que moom xamal na jëkkëru xarit jëkkëru maanaam xaritu xaritu jëkkër ji ne ko sa jabar day ngoro ak sama borom kër mm-hmm. coow am na ca dem nañ ca gendarmerie coow amaat na ca fase am na ca mm-hmm. xale bu jigéen bee tas na sëy bi. donc mën na à tout moment sëy ak jëkkëram moom. maanaam bu dee jëkkër ji seexluwul bu dee jëkkër ji bañul xaritam. te yaakaar naa ne seexluwul. seexluwul ndax kuy jël ci suuf. sa sa sa xarit. intime mu am jëkkër. nga léegi tas na léegi. waaw nga jël jëkkër la daan. waaw mais peut-être mën na bañ lu fàng ci kaw. mu ragal koo takk lépp mi ngi ci. mais buñ doon conseiller xale bu jigéen bi tey man sama xalaat démb dama ne ko. na bàyyi jëkkër ji takk ko. moo yoon. na ko bàyyi mu takk ko. Mhm. njëga ne ma bu ko takkee mën na gën a ñaaw. ndax moom sëyee mën na gën tas. Mhm. ndax ku ci nekk mën na nekk saytaane moromam. loolu lépp mën na cee bañ a am ci sama xalaat. Mhm. pour man lu ñaaw lu rafet moo ko gën. ñu takk sëy bi mhm. ñu wujje wujje gu rafet te xam ne lii fii la yàlla dogaloon sëy bi mais ku nekk sa xalaat nag ñu ngi leen di xaar ci xalaat yi ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 88 628 28 28 ngeen bës 2 33 841 20 69 ngeen bës 2 maam si di nga jàppale ci téléphone bi rek ku ñëw rek dugalal directement incha mantu na yàlla musal ñu ci xel yaa ngi koy wax mhm. Pa Ousmane mhm. bu yàlla doon atte xelu njaaloo ñun ñëpp boo moytuwul mu dumañu wallaay ndeysaan billaay billaay mooy li ngay wax ni yàlla na xel dee mhm. bu doon xel day njaaloo ñun ñëpp boofu nañu ay bàkkaar yu dul jeex dëgg la mhm. ndax yenn saa yi nga dem sam xel dem ci koo xam ne doo ko mës wax te mbëggeel mhm. doo ko mës a wax waaye yàlla baax na ba mu yemee cim cim xel waaye li tax xel garaaw day jox fit xel day jox day jox day jox day joxe fit. dëgg la. Mm, mm. te boo bu bu fit yëngatoo rek làmmiñ kàddu génn. Mm-hmm. du bon maanaam du mas a baax. Mm-hmm. njaaloo la mm-hmm. du mas a baax. amul kenn ku koy def koo xam ne dañ wax ni la li tax nga di ko def tax nag mu baax. déedéet. waaye yàlla na yàlla fekk ñii ragal yàlla nekk ci ñoom. ndax boo moytuwul ñu sëye ak jabaru jàmbur. mooy borom alal gu maanuwul. borom alal gu maanuwul. mën naa sëy jabaru jàmbur. dëgg la boroom la. borom xam-xam bu maanuwul. mën naa sëy jabaru jàmbur ndax gis nga fi ba tàyyi. ba tàyyi. nga ku siiw. ku siiw nekk ci télé ak rajo. baa ngay gàmmkat baa conférencier. yàlla day tàggat sa kanam. jigéen ñi dañ lay bëgg. boo maanoo nag ragal yàlla mën nga cee mucc waaye boo mu boo ragalul yàlla mën ngaa sëy ak jabaru jàmbur. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa am ñaar yu si xew. ku taaru lool yokkuñu taaru. kon ak taaru lool. Mm-hmm. ndakaaru. boo amee nopp tuuti mantu dangay dégg jigéen ñi di waxtaanee bay tudd ay góor yoo xam ni dañ naan dañoo man kaw lal. dëgg la. wallaay. dëgg la. ci tur yooyu am na tur yu ma ca dégg. da ngay dégg jigéen ñi fii ci ndakaaru ñuy wax ni diw ak diw ak diw dañoo man kaw lal waaw léegi nag ragal yàlla bu bu dalul ñooñu man kaw lal du ñu yem seeni jabar ak ku ko xam loo jigéen ñooñu ñëpp beneen bi mantu est-ce que xam nga ni am na koo xam ni bëgg na jëkkëram de bëgg na jëkkëram boo xooxoon kan nga gën a bëgg ci àdduna daan sama jëkkër laa gën a bëgg mhm. waaye mbon a tax mu dugg maanaam ci njaaloo dafa mm. am ñoo xam ne dañoo bon tey boo leen doon natt kan la ñu gën a bëgg dañ naan sama jëkkër waaye jikkoy mbon tax na ñu dugg ci njaaloo parce que am na ñoo xam ne bu dul alal sa jëkkër day am lu dul jeex. waaw ñu gis koo xam ne. amul dara ñoo koy jox. mais wa ñoo koy jox. waaw mais dañuy séq ak moom jaaloo. jaaloo ñu gis bon dañu dañuy am jëkkër sax ngir bëgg a gën a bëgg mën a xuus ci bon. bon ndox boo amul jëkkër boo bonee day feeñ. waaye boo amee nag ci ah, nag aca. mantu saawu dagg la. ndakaaru laa gis ngoro ndakaaru du jeex. Mm. ngoro ndakaaru. ngoro gi ngoro ndakaaru jeex. ndax lan Fall yaa ngi tooñ de. ah. ah déedéet. Ah. kon naa wax mi. ah baax wala ah. ñenn ci Ndakaaru waa ah. ma yàgg fi man. mi boobu du jeex. waaw kay ay gis nga da ngay gis waaye foo leen tasantee ci benn milieu day mel ni bis boobu day tàmbaliwaat. Mm-hmm. loolu ñaar ñu minante la. da ngay gis koo xam ni bàyyante ngeen waaye fu message wala mu mu vise sa statut rek da ngay gis ni day mel ni day dekkiwaat mbëggeel ga. dëgg la mm-hmm, mm-hmm, dëgg la. day mel ni day dekkiliwaat mbëggeel ga. moo tax ma ni seen ngoro du gaaw a jeex. parce que milieu yi ñuy dajeeg. te du ñoo mën a noos nag wax dëgg yàlla te xam euh, euh, euh, place yu baax yi nag te di fa dem. waaw gis nga mantu. ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu takk bu yeboo nga supprimer say photo ex mm-hmm, mm-hmm. photo ex yi tax na sax nit ñu jiiñ diw ni day doxaan mm-hmm. yow nga garder ko pour souvenir maanaam souvenir ba jeex na koro ba nga dégg alxari lu am solo la souvenir ba jeex lu am solo waaye da ngay gis am na ñoo xam ni seeni photo ex ba tey ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ñoo ngi ko garder ci seen portable dëgg la am na gel am na jigéen yuy sëy yoo xam ni bu ñu déggee wayu ndar bu yuusu nduur ba jëli asamaan seeg jëm ci weer wi daa am lu mu leen di fàttali jigéen ñi fexe nañu ba morso bu ne am na milieu bu leen di fàttali morso bu nekk am na góor gu mu leen di fàttali waa léegi nag li ko waral lu bari dangay génn nag xale bu jigéen bi jamono ji nga koy doxaan amoon na ñetti ñu ko daan maraan mhm. bu musaana am problème mu cent mille francs yow 25000 nga daan jox ñetti ñee joxe kenn ku nekk 25000. muy 60 75000 plus 25000 égale 100000. seeni soxla soxlay xale bu jigéen mi góor ñi dañ ko daan sot sotoo. dëgg la. Mm-hmm. góor ñi dañ koy sot sotoo di ko di ko faj. dëgg la. Mm-hmm. daawoo banque da nga daan maye kenn daawu la may. Mm-hmm. te mosoo yëg moo tax gaaw am jabar baax gaaw a takk baax. waaw fa baaxul. gis nga gaaw a am jëkkër gaaw a am jëkkër. day day tax kilifteef nga nga tàmm mm-hmm. kilifteef mm-hmm. nga tàmm kilifteef mm-hmm. boo yeexee am jëkkër mel ni bayum ndëpp fu la neex jaar nga am jëkkër ba xaw a teel a mënal sa bopp tamit merci beaucoup teel am jëkkër dafa baax day tax nga teel a xam lan mooy kilifteef boo ko yeexee am fu la neex dem tey ñu naan la toogal bul dem ngay tàggoo ñu di la ñu di la tere. xam nga âge boo xam ne boo ko amee yaay dootu la tere bàyyi dootu la tere parce nga. mag nga yaa daan demal sa bopp. mais bu tolloo ci toogal bàyyil jàppal. Ah. ñu may la foofu jëkkër. Mm-hmm. loolu nga xam te boo demee loolu nga yóbbu. loolu ngay yóbbaale. léegi nag soxla yooyu ñu daan sot soxla yooyu ñu daan sot mantu tey ñu takk la ñeenti góor ñoo daan faj sa soxla tey benn góor mooy faj sa soxla. te du mm. lépp lay faj. tey na nga daan dundee boo ko bàyyiwul ña ko daan faj ngay seeti ñu ñu continuer di ko faj mm-hmm, mm-hmm. ñu ko daan faj nag mbëggeel tax na ñu ko daan faj waaye tey xam nañu ni yow choisir nga ci ñeent ñooñu am nga borom mm-hmm. léegi lan moo ci mooy dañ roq min roqaani moo fay nekk mooy vingt-cinq mille yaa nga daan jox kat da leen jox tey sa bopp ñu soog laa jox yow sa soxla boo ko jiitalee mooy danga naan euh, euh, euh, nopp nopp nopp du wax bakkan du wax tàll du wax nu ñu koy waxee loxo du wax kon du wax ku dul nettali nag loo ko sas baax na su boobaa nag da koy jël def ko marchandise boo koy jaayee di faj sa soxla. Mm-hmm. am na ñoo xam ne loolu lañ ci dugalee. Mm-hmm. waaye njaaloo li tax mu garaaw mantu. Mm-hmm. posé woon naa ko démb question. njaaloo li tax mu garaaw man man man maa imaginer wul nga dem seq ak ku góor mu sëy ak yow jox la benn trente mille franc wala benn cinquante mille ba cent mille franc. mu jox la ko. guddi nga ñëw sanguwaat seqaat ak sa jëkkër. waxaat joxal exemple bu góor bi. yaa ngi dégg góor tamit bu yemaleel rek waaw kay. ba ci góor kon nañu yemale rek laabaroon sama doom day faal na yemale rek. laabaroon maa koy méngaleel rek. <laughs> yaa ngi dégg xam nga ni mu ñaawee. jigéen dem séq ak beneen góor bu dul borom këram. waaw sangu fa ba set. góor ga jox ko xaalis. mu ñëw tëdd. borom këram soxla ko mu séqaat ak moom noonu la ñaawee góor tamit dem séq ak beneen jigéen ci biti. sangu ba set jël la mu am jox ko. ñëw jabaram laaj ko boppam. Mhm. mu jox ko jabaram te du jox jabaram dara. nday bañ sax. mais nag dafa am ñaari si nekk ala eh, Fall ñaaw ñaaw la rek. ñaaw ñaaw na lool waaw bu ko rafetal. Mm, mm. ñaaw ñaaw na lool. waaw. Eh, li ñu xalaat lépp mënuñu ko wax ci tey. Ah, ñaaw na ba noppi mais ñaaw na ba noppi. te day gën a ñaaw nag. <laughs> Ah, <laughs> benn la benn la ñaaw na ba noppi. te day gën a ñaaw nag. <laughs> mukk na fi am xam nga ah, lu am lu am lu am solo la mantu wax. waaw fi mu toll boo laalee góor ñi rek mu décroché. waaw déedéet dafa am analyse bu ma ci war a analyse. ayca waaw boo xam ne su la ko joxoon. su ma la ko joxoon da nga ah Ndiaga wax nga dëgg. Mhm. maanaam am na analyse boo xam ne su ma la ko waxoon. parfois ku góor ki pour junj ci borom xel yi yàlla bi waxal sax borom xel yi lay la doon waxal. Mhm. Mhm. gis nga ci ku góor ki yenn saa yi mu mu lekk ji suur. suur. nga bëgg koo joxaat lekk mu doon problème. mantu am na moteur yoo xam ni da ngay sauver soog a taal mu soog a tàkk de. Mm-hmm. ah am na mët am na oto yoo xam ne seeni moteur mm-hmm. da ngay taal sofe mm-hmm. mu soog a tàkk am yoo xam ne da ngay puus a yoo xam ni dangay ngay taal rek mu tàkk gis nga gis nga gis nga gis nga euh, man naa dem sëy ji feneen ñëw ci kaw lal bi jëkkër jabaram laaj ko te man waaw bon moo gën a bon wala jabaram laaj ko te du man Mm-hmm. mais jigéen mën naa sëyi fële. Mm-hmm. ñëw sëyaat ak borom këram même bu ko bëggul. Mm-hmm. moo tax moo tax moo tax góor ñi. moo tax booboo boo analysé. ci góor góor góor ñi mbir mbir mi ci góor la gën a yéesee. man foofu dama la fay jàppale tuuti. ñun dañoo sikk de. ndax ku jigéen ki dana dem mooy ji yàlla ñëw jëkkëram soxlaat ko mu àndaat ak moom mais bariwul ci góor ñi ñuy dem mooy ji yàlla ñëw di àndaat ak seen jëkkër benn am na ñoo xam ne li am na ñoo xam ne ni am na ñoo xam mënuñu mënuñu comprendre ma li mu wax de ma ñëw maanaam nee na jabar mën na mooy ji yàlla hmm. ñëw àndaat ak jëkkëram ci guddi ci guddi hmm? góor mën na may mooy ci guddi gi hmm? ñëw ànd ak jabar mën na ne waaw ndax la tamit mën na ne waaw waaw waaw comme jabar mën na ne mooy ji ñëw du ànd ak jëkkëram waaw mais ci góor lañ ko gën a kiyee nag waaw ndax ci góor lañ ko gën a ci góor lañ ko gën a lañ ko gën a séentoo ndax mën naa am kàttanam mayu ko mën naa am santé mayu ko ko mën naa am sax mët otoom moo mën lim lim li mu waroon a daw daw na ko ba noppi. Mhm. motooram. waaw motooram bëriwul bëriwul doole yoo xam mën naa dem fee ñëwaat demaat fii. dëgg la mën naa am tamit dafa jugee ci ca ca débiteri ba du soxlaa soxlaati ceebu keccax. Mhm. waaw ndax ba mu jugee. bu gënee bu ko bu ci taamu bu ci gënee taamu bi mu fiy fekk si kon bu jógee ca dibi ba lay woon Pa Ousmane bi jéggal ma ne yàlla yemalewul yemalewul sax mooy ci góor ak jigéen yemalewu ko sax gis nga jigéen buy mooy yàlla dala koy woon fii ba pare ci sa njaboot nga faatu mu tàbbal la safara bu dee ci wax bu ma sukkandikoo ci waxu sama papa Youssouf waaw gis nga euh, ci nga xam ni yàlla. Eh, te te eh. te yemalewu ci sax góor ak jigéen. te mooy ñun jigéen ñoo tendance di wax ne. Mhm. bàkkaar la bàkkaar la góor gi day am bàkkaar jigéen day am bàkkaar dañuy am da dëgg la ñoom ñaar ñëpp yem ci bàkkaar bi. Mhm. waaye ci kaw suuf sax. Mhm, ni mu ciy wanee ku jigéen ki ni mu ko ciy mbugale. du ci fekk ku góor ki. bu nekkee bu nekkee société bi waaw. Euh, bàkkaar maanaam mooy jaaloo day lëndëmal kanam. foofu laa ñëw jaaloo. wàññi wërsëg. day wàññi wërsëg day wàññi wërsëg il faut ñu xam ko xanaa xamoo ne jigéen buy njaaloo day um borom kër ak góor ak góor buy njaaloo xoolal day um soxnaam mm-hmm. yenn saa yi nga xool jigéen nga xool jigéen mu lëndëm nga xam ne lëndëm gii du lëndëmu dund euh, dund gu dund seer mm-hmm. lëndëmu euh, sobe la saa yi nga xool nit nga xam ni lëndëm gii mu lëndëm lëndëm lëndëmu sobe la sobe la wallaay day am xam nga euh, benn kii rek benn kii rek la laay nangu na ñoom ñaar duñ ko mën a bokk ci société bi gis nga jigéen bi nga xam ne day taxawaalu moom pour xoola pour ñoom société bi day continuer ba ba muy faatu saa bu tuubee yor kolam di dem ci jàkka jàkka ji ak a ñëw dañ naan caga rek dëgg la dañ koy xoolee di ko wax ay doom mais góoram saa bu ko neexee mën naa tuub ñu ne ah, diw léegi di xoole kurus gam yore léegi sax lijaasal nañ ko mm-hmm. léegi sax seexal nañ ko léegi mu yor ay taalibeem foofu moom duñ ko mën jigéen góor lañ gën a mën a euh, euh, muñal mais bu nekkee feebar gi yëpp ni muy dalee ci jigéen ki lay dal ci góor gi am na góor ñoo xam ne da leen gis ci biir famille mais kenn du góor guy njaalo ci bi mu dëkk kenn du ko respecté danaa ñaaw teg danaa ñaaw moom ndax benn leer du ko am dëgg la ay feebar yu bëri dana ko gaaw yomb ndax feebar yu bëri yi xew yëpp waalante am na mais ci njaalo lay faral di juge mhm. feebar yu bëri mi ngi am te ci njaalo lay faral di juge ndax ku la dàq njaalo moo ko ëppale dana ñàkk wërsëg te dana gaaw a faatu tamit yooyu yëpp mi ngi ci am kon njaalo baaxul te nga mbon dafa bon ndax boo ci xuusee dooto an yaraat yow saa nit bu dugee ci dara day dem ba xuus ci bari ah man daal jom da ngay jomb sax an yar ndax li nga ci mën a def lu bon baaxul noonu la def lu baax mel noonu la def teraanga mel noonu la euh, joxe mel lépp loo ciy def rek dañuy dem ba loolu day nekk ci yow day nekk ci yow deret sa deret lay nekk ni ngay wuti turu yàlla turu yàlla rek day dem ba càgg sa deret lay nekk mais sa bopp mu daal fële sax bopp ba da koy turu làmmiñ da koy wax wala deret ji tam bu bu waddee day bind yàlla tif ci suuf ndax day dem bay ànd sa deret noonu la mooy yàlla mel la fen mel def lu baax mel noonu la def lu bon mel kon lépp loo ci tàmm day dem ba ànd ak yow euh, topp la mantu gis nga sànq yaa nga wax moo tax jigéen war nañ kaa mën a xàmmee ki am jëkkër ak ki amul borom kër mhm. tant que mënuñoo xàmmee jigéen bi am jëkkër ak bi amul borom kër ak jigéen gi baaxagul am na koo xam da nga koy gis fii léegi di laaj ci am na jëkkër mhm. waroo kaa laaj ki am jëkkër boo gisee war am fulla mhm. am fayda mais ki am jëkkër nga gis ko muy charmé waat xale yu góor yi suñ ko teg ah ah ah tey tu teewul góor yi am nañ ci part de responsabilité bu rëy waaw baax na. dafa am ay góor yu saay-saay. waaw. ak fonction bu ñu mën a. bu ñu mën a occuper. Mhm. ak profil bu ñu mën a. laabaroon dafa doy. doy na ak profil. Mhm. Mhm. mi ngi daaj ci plateforme bi. faa ak profil. maa ngi koy nuyu bu baax. Euh, laal yoon nee na góor gu gu nekk loolu lu commencé par T. mais bu nekkee papa T boobu lañ la war a woowee. Ah? <laughs> loolu rek bëgguma koo wax. am am na ñoo xam ne ah. am na ñoo xam ne njaga. waaw dafa am góor ñoo xam ne. Mhm. Euh, dañoo caay caay. waaw. dañoo saay saay. waaw mhm. dëgg la. Mhm. wallahi jabaru jàmbur. muy seen vice. Ah, maa ngi ñëw. dafa am ay góor yoo xam ne jabaru jàmbur muy seen vice. bëgguñu seen jabar mhm. bëgguñu ko amul ko amul ko ak maam jigéen goo xam ne amul jëkkër mhm. seen fils mooy jigéen gu am jëkkër mhm. wallahi bëri na góor ñoo xam ne ñoo yàq ay sëyu jàmbur da ngay wóor ni diw mii am na jëkkër mu jaral la ay milliards nga def ko ci pour benn guddi wala benn cinq minutes l'essentiel que li mu woddoon nañ ko am si nga nag góor ñooñu ñoo bëri ci société bi te li gën a garaaw ni jigéen ñi amee clan am association di ko waxtaane noonu la am ay góor yoo xam ne mm-hmm. bëgguñ wallaahi bëgguñu bëgguñu lu dul jabaru jàmm ba pare ne mm-hmm. dañ koy waxtaane mm-hmm. diw de jabaram ah sama nangam diw de jabaram nangam ah, diw li muy jaay affaire lépp jabaram nangam dañ see am association yoo xam ne ay góor yoo xam ne tey bu ñu la waxoon ni la ñii lañu da ngay tudd da ngay tudd yàlla da ngay dem ba gis dëkk bi li tax mu garaaw mantu mooy Ndiaga Fall mii wax àdduna di ko dégg boo moytul moo gën a bon. Mhm, mhm. Pa Ousmane mi nga xam ne mhm. su ma réeree ci masala moom laa war a laaj masala. boo moytul moo ma gën a bon. tey bëri na loo xam ne li ñuy waxtaane nii ci société bi. ñiñ ko war a tere ñooñu ci jiitu. góor ñaar la. dafa am koo xam ne amul moyen waaye jigéen ñee ko song. dafa am ji góor goo xam ne amul moyen. waaye jigéen ñi ñoo ko song parce que la ñu bëgg moom moo leen ko mën a may waaye dafa am tamit góor goo xam ne dafa am moyen te mooyam yëpp ci caay-caay la ko yàlla xiir tey boo xol da leen di jaral ñu yéeg avion daggal la bien def jox la xaalis nga def commerce wala ñu invité la ci bakkal baa ci bureau dëgg la boo ñëwee ñu jël xaalis jox la ni la ah sama xel daa nekk ci yow man day boo amul woon jëkkër nàngam nàngam fii moom Fall bon bee gën a yomb baax. wallaahi bon gee a yomb. xam nga euh, yoon bon moom boo opté pour def ko rek. waaw da nga ko góor góor góor. jàkkaarloo jigéen ni dama laa bëgg ah damaa am borom kër. man mi damaa bàyyi ay jabar. yow benn góor benn benn borom kër nga am man nag ñaari jabar laa bàyyi. xam nga xam nga xam nga hmm? jigéen. jigéen <laughs> jigéen waaw jigéen. nu mu tudd saay saay. jigéen saay jigéen jigéen bi am borom kër. Ah, waruñ waruñ kaa waruñ kaa laajte. foofu laa tolloon sànq jigéen bi am borom kër waru caa laajte bu ñu demee bay laajte ndax am naam amul rek caay-caay dikkal na ko mais am na góor boo xam ne ki am borom kër moo ko neex moo ko ñox noonu la tamit jigéen boo xam ne ki am jabar la bëgg di génnal. dëgg la du génn ko amul jabar. dëgg la du génn ak ndax da koy moom daal ki am jabar la bëgg. am góor goo xam ne ki am jëkkër bëgg. Mm-hmm. Euh, moom la mm-hmm. bëgg. Mm-hmm. moo tax li ñaan ñaar ñaar ñu miinante pour ñu bànnte du yomb. da nga wax sànq bi ngay joxe exemple ci jigéenu réew mi ñaar ñu miinante pour ñu bànnte du yomb moo waral bi nga amee borom kër. ñu amee borom kër am na koo xam ne nii seen relation warta continuer ndax sa farla woon te génn gi neexoon na numéro am da ngaa war a supprimer ndax xam na ne moom ca gis nga góor boo xasee ba miinante gi am fu ngeen mës a dem am lu ngeen yàgg a séq liñ naan ñam moo jafe mais ñamaat jafewul <laughs> mos jafe na waaye mosaat jafewul xam na fi mu lay jaar passman baal ma de mantu hmm? li passman wax ni da ngay supprimer numéro téléphone hmm? wallaay du ñu supprimer numéro téléphone hmm? ku jigéen gi ku jigéen gi réew mi dañoo baaxoo dem jàkk ja ba pare 3 mois 4 mois ñu soog a def réception. Mhm. réew mi baaxee nañ ko. Mhm. ñu tuddee ko mayu jàkk te mayu jàkk mooy farata. Mhm, réception ba maanaam siiwal la. mantu da ngay gis ay góor jigéen yoo xam ne dañ leen di maye ca jàkk ja. jour bañ leen di maye mën na am la ñuy dolli ci beñe bi wala li ñu dolli ci seen i gerefaas. dañ koo mbaraan dolli ko ci. dolli ko ci. wallaay loolu moom mooy some mbaraan. waaw. am na ñoo xam ne jour bi nag ah, waaw am na jour bi jour bi ñoo xam ne li ñu sol mm-hmm. li ñu sol ñaw ba mm-hmm. dañoo mbaraan fay ñaw bi musu mm-hmm. ñoo wax ni damay am damay ñu may leen jàkka ja ñu silence la yow doo ji seen statut waaw te yàlla bu def nag farwa sant faal jëkkër ji sant faal mbaraan man moom de cent pour cent lay doon ndax dañuy wax ni faal yaaram borom 32 dammel yi nga defee ni yow la ñuy wax. Mm-hmm. fekk dëgg na jëkkër lay wax. dëkk na dëgg na mm-hmm. alxayri mën nañ la ko def 3 mois. Mm-hmm. di lekk sa xaalis 3 mois. dema dema dema dem ba ñu def réception bi ngay soog a yéeg mi diwkat maye nañ ko mu mel ni tey lañ koy soog a maye mais kooku dafa am jëkkër di farantu. ah waaw waaw. ñaari kooku dafa am la ma ne la jàppalee bës. waaw nga dem mbaraan def ci beñe. Ah. da nga koo farantu da nga koo farantu. da nga koo farantu ñëw def ci sa da nga naan ñaari jëkkër moom nga am. parce que déjà sëy ba nga commencé ca kaddu ya kaddu ya kaddu yu hmm. tënkantee rek wax ne bu njëkk noonu doon takke sëy avant l'islam di ñëw hmm. ñaari rek non ba ci l'islam sax islam noonu lay a yëpp kay ne waxtaan si bu amee ba kaddu am ba ba taxaw na juma waaw ba taxaw na di yow daanaka yaa ngi buum sëy ba léegi yow sa rob bi waa ji participer na participer na ci ah joxe na ci. léegi daanaka mën nañu ñaari jëkkër nga am moom. <laughs> ñaari jëkkër nga am ndax comme sa biir sëy sax la far yi di joxe te xamul ndax ñu lay bëgg a takk ñaari jëkkër ba nga am daanaka kon luy naaw sa dunku di ruus fu mu jëm du sori sëy ba mën naa bañ a yàgg te bu nekkee ñaari faal tamit noonu la rek du tudd tur faal njaga yaaram faal borom ñaari 32 33 maamu dammel yi nga foog ne yow la ñu wax te fekk na waxu bu ko defee nag léegi nag euh, yooyu yëpp yooyu yëpp <laughs> mi ciy am li tax jigéen ñi ñu bëri bëgg jëkkëru jàmbur wala góor ñu góor ñu njëkk faal. Hmm. sama benn waaye mu ngi mu ne ma euh, mu ne mu ne li tax gars yi di wut jabaru jàmbur yi muy taw muy saw la. Ah. muy taw muy saw. xam nga boobu. waaw hmm. muy taw. muy taw boo taxawee si kaw terrasse bi muy muy taw. waaw waa ji di saw duñ mën a xàmmee taw meeg saw mi dëgg la. waaw muy taw wala muy taw ngay fobeere. ngay fobeere sa <laughs> du ma sa xam nga tey du ma sa du ma sa waw jëkkër ji mooy mooy taw moom waa ji far wi mooy saw bu ko defee moom bu doom amee nañu jàpp ne day taw mi ngi taw waaw ndox mi woo wal mi jàpp ne mi ngi taw mhm. mu taw nga ubbi sa sa sa foos rek ni Dakar def ndox mi da lay rob fekk na ndoxum taw du ndoxum taw mi de ndoxum foos mi lañ ubbi hmm. waaw boo àggee na nga sangu ba seet xam na mbir mi du ndoxum taw mi dafay taw muy taw ñuy ubbi foos la bari na ci doom yi daagu ci kër ah wóor na waa kër ga ne leen doom ji diw du baayam diw du baayam mu leer waa kër gi ne doom ji diw du baayam moom baayam biñ ko bàyyiloo mu ngénte jox ko tur sax day laam-laamee ni diw du baayam mais na ci lu am moo tax mën a wax léeg-léeg nga am ci preuve uuf ko uufaale ndayam doo sañ a wax mm, mm, mm, parce que bëggoo xaawi sutura ñun ci kër yi ci kër yi moo tax boo boo boo nekkee boo nekkee koo xam ne jub nga dëgg ki nga jàgg jaaral fenn foo la gis ni safar la woon boo supprimer numéro am dafa gën njaga ndax xam caay-caay la te yàgg ngeen a jaar fenn fi estat yooyu muy estat di la fàttali loo xam ne ne sa xel nekk nag ah mën naa estat loo xam ne ni mën naa sëf oh. ñëpp daal la koy jox yow ah loo xam ne sa xel da ciy nekk te xam nga lii mu lay lii mu lay fàttali amu ko fii nii mais bu dee tamit koo xam ne ni yow yàgg ngaa zaayir fu ne dugg nga fa mais changer sa numéro téléphone dara newu ci changer numéro téléphone araalu araamalu ma ko bañu ma ko sama soxna ma takk soxna ma ne Pa Ousmane ma bëgg sens sa numéro dama ci ànd ak yow ndax day mën ngaa tëdd ba xaaju guddi ka nga xamoon Kolda ki nga xamoon Fatick ko xam ne nga mës a nga xamante moo woo la une heure matin célibataire la la ndax ba nga amee jëkkër euh, yëgu ko muy wax ak yow ci guddi wala mu woo la jotu la jot sa jëkkër mais fiir mën na ci am mais bu dee mm-hmm. numéro bu bees nga amaan nag mm-hmm. nga xam ne mantu laa koy jox mooy sama njëkke Njaga Fall mooy sama cousin jëkkër diw ak diw laa koy jox keneen ku ko yor nag joxuma la ko kon yooyu yëpp dara new ci waaye nga bàyyiwaat yëpp nag ngir ëllëg di xaar fay am wala mbaraan am wala naa dem mu mottalim sama dépense gaa yi bu ñu mottalee sa dépense nag wala ñu jënd la yére nag wala ñu jox la paasu màggal nag numéro sax du solution Dakar gi hmm. dafa xat dañ koy amaat bo dafa xat hmm. ñëppay tase hmm. budul fii di fee da ngay tase moom mu joxaat la numéro du solution Mm-hmm. jub rek kay mm-hmm. waaw kay. jub rek kon ñu yàlla jubal. ñu yàlla jubal. dañ koy ñaan yàlla na te ndax mooy jubal. Mm-hmm. yàlla na yàlla jubal ndax mooy jubal tentation yi dafa bëri. mantu fi réew mi toll tentation yi bëri na. waaw yàlla mooy jubal mooy ndax borom teraanga. du ñeme yàlla kum rayagul te kum ray kum jot kum rayagul rek yàlla ci yàlla ci àndul personnalité waaye dimbalu yàlla moo ci jàmbi yàlla yàlla dimbali jigéen ñi ci réew mi amin manto yàlla na yàlla dimbali jigéen ci réew mi ndax fi réew mi toll te yàlla bind na ay góor yoo xam ni wallaahi saay-saay nañu te bari nañuy moyen mm-hmm. te dinañ la ubbi ndeysaan yàlla na yàlla yërëm sama waajur mm-hmm. dafa wax ni ku lay ñaan mm-hmm. ku lay ñaan bis dina ñëw mu ñaan la nga rus koo gàntu loolu ndeysaan mu ni ku lay ñaan maanaam ku lay may ku lay may ku lay may ku lay may mm-hmm. lay may mm-hmm. mu ne na ko na na nga moytu ndax bis dina mës mu ñaan la nga rus koo gan di nga am na góor ñoo xam ne fii ak ah kar nañ mën nañ la koo xëpp nag waaye benn bis mooy doom benn bis dinañ lay invité nga di ah daf may defal teraanga naa dem nga yegg ci invitation ba boo amul fulla ak fayda dañ lay ñaan ci boobaa teraanga yow soo amul fayda rek da nga leen may mantu gis nga jigéen ñi wallaahi waxuma ni ñëpp a bon. Mhm. waaye góor ñi am nañ si part de responsabilité budul jeex. Mhm. ñoo leen bon loo. yenn góor yi. yenn góor yi ñoo leen bon ñoo leen bon ñoo leen ñoo leen ñoo leen bon loo. Mhm. parce que tey am na koo xam ni amul mooy wut auberge dem ci hôtel amul moyen xëy na fi fi la war a fekk boo ko joxul woon paas tey amul moyen fekk la fa. location ba yaa luye hôtel ba wala nga luye chambre ba mu ñëw fekk la fa. ngeen seq la ngeen di seq joxaat ko xaalis mu dem bu doon ay moyen képp moom du la fa fekk. waaw yow fa euh, euh, la baroon je pense que téléphone bi moo am problème ñu ngi jégalu. Euh, je pense que loolu la parce que ñeneen ñu ngi may message di ma wax ne ñu ngi a dugg mais mënuñu dugg ñu ngi ci jégalu du waxtaane ko bii la nit woote fii en direct. waaw mm-hmm. waaw waaw mais dafa bàyyi doomam hôpital Fann. dem di ñaan ab kilifa. wallaay dëgg la. Mm-hmm. kilifa gi ne ko bu ma séqul ak yow. waaw du la jox du ma la jox dara. Mm-hmm. mu mujj séq ak moom dem faj doom dem doomam nee na mm-hmm. saa bu xoolee doom ji loolu lay gis. waaw fii la woote ci waxtaane ko wax ko wallaay am na koo xam ne keroog maa ngi koy liir ci ci ci réseaux sociaux yi xawatuma fan la muy wax ne jëkkëram la doon génne prison mais kilifa gi ko jàppale daf ko séq ak moom ba pay door def loolu ak yeneen ak yeneen chantage yoo xam ne chaque jour ni da la koy wax maa la wax loolu mais léegi ñooñu bu ñu amoon pexe duñ ko def. Mhm. suñu amoon li leen gënal. du ñu mhm. njaaloo ci seen àddina. waaw. Mhm. parce que du seen bëgg-bëgg du seen coobare. mais dafa am nit yoo xam ne ñoo yor pouvoir ñoo yor sañ-sañ. ñoo yor alal te loolu noonu. bu doon pour ñoom la ñoom pour ñu wér. duñ ko def. yaay joo joxe boppam ndax doomam wér. su doon moom moo tëdd feebar. war a def opération du ko def. mukk ci àdduna mukk ci mm-hmm. àdduna. Mm-hmm. gis nga parfois mm-hmm. ci moment de faiblesse. ci moment de faiblesse. ci lañ lay ci lañ lay ci lañ lay ci lañu profité ci yow. ci de faiblesse ci la ñuy profité ci yow. yaa ngi fàttaliku ki amoon jëkkër ci thème bi la jaaroon na fi am jëkkër beneen waaye koy jàppale. comprendre nga bu proposé ko takk pour mu divorcer mu takk mu mu mu takk ko. yooyu yëpp da ciy am waaye li ma lay wax mooy ki la ki la fekk ci sëy. doxaan la ci sëy. ba nga tas sa ji ba nga tas ngay muñ mu takk la ci sëy bu la waxee dama laa wóolu waxul dëgg wóolu la xam nga dañ ne sopp jigéen jigéen soppalte bul wóolu dañoo war a wax góor soppalte bul wóolu ndax lépp lu jigéen def rek góor ci ànd ak góor ci ànd moom moom mbon mbon gi ci réew mi yëpp ndax nit bu baree alal bëri teraanga comme li nga wax sànq am na ñoo xam ne ci liggéey jox la liggéey bu baax jox la poste bu baax di la fay salaire bu baax bés yoon ñu bëgg laa foye boo bañee ñu ne dañ lay dàq te duñ fenn kon loolu lépp mi ngi am am ci réew mi sa jëkkër sa di prison nga bëgg mu génn mu ne la benn yoon xam nga sa doom feebar yooyu yëpp mi ngi am ci réew mi kon nañ koy motu moo tax borom teraanga ju ñemewul ju ñeme yàlla ku mu rayul ku mu rayul rek dafa jotagul moo tax borom teraanga nañ def te yàlla tax di def lu baax ndax réew mi fi ñu toll nii tasaaroo na def lu bon rek mm-hmm. Mm-hmm. def lu bon rek njëkk fa ma xam def lu est-ce que xam nga ni koo gis mu bon yàlla nañu yàlla musal ci benn benn yoon li nga wax ni benn yoon rek laa koy def ñi ko def benn yoon ñëpp ñoo mujj di ko def. dañu koy gonne day mujj am na tuxkat yoo xam ne sax lay doon sax. waaw mm-hmm. am na tuxkat yoo xam ne fay mego moo tax te ñu doon tuxkat. waaw ca yomb lañ commencé. yomb am na tuxkat yoo xam ne ba mooy. fay mego sax lay doon bu ne ci te mooy dafa garaaw. Mm-hmm. gis nga boo mooyee dafa garaaw. muy ku mm-hmm. góor ki ak ku jigéen ki. gis nga sàcc daal dama yaakaar ni sàcc daa neex. man dama la laaj. nuru na ko nuru na ko sàcc. parce que pexe yi ngay def lakkatu bi piis piisa la wax ci téléphone ci douze bi. jaral la jël avion mu jël avion mu jël avion. ngeen tase bitim réew ngeen tase bitim réew. ngeen sàccante cinq minutes ngeen sàccante dikkaat ci réew mi damaa yaakaar ni sàcc mi daa neex. day <laughs> gis am ñoo xam ne ma wax ni la seen ginaar safu leen ginaaru jàmbaru leen saf. Mm-hmm. seen ceeb safu leen ceebu jàmbur leen saf mhm. am na ñoo xam ne seen jabar safu leen jabaru jàmbur leen saf mhm, am na jigéen ñoo xam ni seen jëkkër safu leen jëkkëri jàmbur leen saf mhm. waaw bu ñu demee ba ci réew moo xam ni kenn ku nekk la nga yor doyootul yëfi jàmbur ngay xool mooy nag kaa ñu daje kaay la ñu daje euh, la la si maire di wax ni euh, maanaam li mu gis ci àdduna bi boo moytul woon ñu doonoon ay bàyyi bàyyi ma def ni xale yi sax day tane parce li kenn xamatul kii kii kenn mm. xamatul mm. kan la mais li gën a yéeme mooy heure bu la sa jëkkër bettee ci njaaloo ba koroog ngay génn àdduna mm. du ko fàtte mukk te du la ko baal doon amati doon amati couple bu neex mukk ci àdduna wala am na ñoo xam ne yàllaa leen nattoo mënuñoo fase duñ la fase am na góor ñoo xam ne mënuñoo fase waaye dañ lay bàyyi ci kër gi heure bu ñu la xoolee rek loolu lañ lay xoolee mm-hmm. heure bu ñu la gisee loolu lañ lay gisee heure bu ñu la heure bu ñu dee wax sax dañuy énervé. ndax loolu ñu gis ci yow. waaye nañuy moytu. buñ la wóolati góor daal day yem ci jabaram. jigéen na yem ci këram. léegi ñaareel lan maantu waxoon démb ni li jig ku góor ki sax jigul ku jigéen ki. man tey su ma doon wax damay wax ni jigéen ñi na ngeen yem ci seen pooju jëkkër yi. Mhm. na ngeen doxee fulla mhm. am na jigéen ñu ñàkk fayda yoo xam ni sax. Mhm. am na ñu jëkkër waaye tey bu ñu àndoon ak seen xarit Fall Ndiaga dara ni eh, waaye doo ma may kii mhm. kii ni daa am jëkkër bu lu dafa dox nga ko damaa am jëkkër doo bàyyi ma maraan ko mhm. bàyyi ma maraan googu mooy andi njaaroo yi ñuy yu bëri yu bëri yu bëri Ndiaga fi ngay tëjee yu bëri euh, jigéen xam nga ñoom ñëpp bon moom bon la góor bon na góor day bon jigéen day bon mais ñu bëri ñuy doxaan jigéen seenu ñàkk fay la dong la jëkk fay rek jigéen dong la mais ku am jëkkër regard baag asalaam bu la bëggee dug am na sa numéro dong am ñoo xam am nañ jëkkër mais seen numéro dong pour nga am ko seen numéro dong dong wala ndax da ngay am ay kii barrage ngay am mm-hmm. ñag day gën a ñagas la muy ñag waaw bu dee kay mën nga kaa jox sax sa numéro ndax yéen a bëgg fu ngeen liggéey mais bu ko am dong ko ne war nga ko waroo kaa am kon du continuer kon du continuer parce que numéro bi donc bala mu kaa am dañ na ci nekk ndax moom xam na ne moom jabaru jàmboro waru di joxe numéro am déedéet waaw kon bu nekkee départ yi dafa yomb kon ci kanam matu matu tabax. Hmm. am na ñoo xam ne ñoo tàmm ngeen taxaw mën nañu laa lëng jàppewuñ ko ay caaxaan de mais tàmmin la. tàmmin mais mu lëng eh mais man nga lëng mais man jabaru jàmm am na ñu ngeen di doxalee yéen ñaa nga xam ne diw kat waruma benn kanamu ñàkk fayda ah parce que jigéen du am jëkkër nag du wane kanamu ñàkk fayda du wane kanamu ay amul problème yi kat nangam ah lii moom ñàngul déedéet amul yi ñàngul dafa mel ni dafa gudd wala allo allo allo maa ngi leen ziar allo allo allo oui ñoo ngi ziar Diallo ziar ba. naka yitte yi. yitte yaa alhamdulilah alhamdulilah. thème bi am na solo trop macha allah. Mm. jaajëf. waaw man dama ci bëggoon indi sama benn participation bu ndaw rek. ayca. xam nga yenn saa yi nekk ci kër kër gu mag. Mm-hmm. nga nekk jigéen di fa sëy. Mm-hmm. allo. dem na xam naa ne ñun foofu la ñuy jaare tëj ah. na parce que suba rek suba euh, bu téléphone bi mënee teel parce que euh, ñi bëgg dugg dañuy bari mais problème bu téléphone la ñuy xam naa euh, suba incha allah ngeen teel ko ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 628 28 28 ngeen bës 2 33 841 20 69 ngeen bës 2 Pa maa ngi lay ñu euh, di la jaajëfal suba incha allah. Mm-hmm. yaa fi toogaat ci kattanu borom bi ak euh, Fall incha allah ñu wéyal thème bi rek ci kattanam ak mën-mënam moom subhaanahu wa taala